xam nga rapport il faut aller dans l' esprit des textes lu lu esprit wu texte bi maanaam li nga xamante ne moom moo euh, làqatu maanaam ci gannaaw euh, euh, téere yi nga xamante ne ñoom ñoo ses sos lu mel ni ARMP. xam nga ARMP dafa am benn mission boo xamante ne maanaam c' est essentiel moom mooy recommandation maanaam dina la recommandation xelal la. pour su dee dafa am gàkk-gàkk mu bañati am dina la recommandel daf la xelal la pour maanaam soo fàtte daf benn kayit ci marché yi mu bañatee am donc dafa c'est une dafa am une mission de conseil et même voire de recommandation d'accord donc loolu nañ génnee tey par exemple am na ay structures yoo xamante ne maa ngi lii rapport nee nañ am na benn kayit boo xamante ne dañ koy fàtte te am na sol wala ñu jël beneen structure ñu ne ah commission des marchés bi de xëy na ni ñu ko tegee mën nañ ko teg si nu gën a rafet nu gën a respecté texte yi loolu lu am solo la ndax loolu daf ñuy jubbante ku mel ni man nga xam daf ñu dañ dañ ma dénk établissement dama ciy bàyyi xel ba année prochaine su doon dama ko doon def dootuma dootuma ko def damay gën a rafetal ARM rapport ARMP bi noonu nga mën a jàngee mais lu am solo mooy fu may wax ak yow nii rapport bi génn na démb mhm. mais kenn mënul wax amul benn benn yoon bu ñu wax ci rapport bi kilifa yi nga xamante ne président la république son excellence Macky Sall ñoom na wóolu ba dénk leen. luubal na xëy na mën nañu ko bañ a tuddee luubal mais nag am na loo xam ne xel nanguwu ko am ne rapport bi fu ñuy gis ne ñuy wax ne lu dema nekk ay mbaam 13 millions ñu ngi wax fu mel ne post di fa wax ay 900 et quelques millions yoo xam ne kenn xamul fu ma dugg loolu buñ ko tuddewul luubal si rapport it xel mënu ko nangu wax dëgg yàlla te yu mel noonu yàgg nañ ko gis aussi si gouvernement si gouvernance Macky Sall waaw léegi man dama lay laaj parce que da nga ne mbaam xam nga dafa am yoo xamante ne soo ko waxee rek yi day ne ah moom doy na waar mbaam yooyu ngay wax ban ministère la ministère de de l' environnement. de l' environnement xam nga ñaata mbaam nañ jëndee 13 millions. yow xam nga ne benn mbaam du jar 13 millions xam nga ne fukk mbaam du jar 13 millions mais xam nga suñ calculer ba gis ne mbaam man xam naa mbaam ñaata nay jar dina jar juróom benn fukk junni ba téeméeri junni suñu calculer ba gis ne ah ay la yowin ñoom de loolu nañ jé jëndee mbaam yi mais foofu luubal amu fa d' autant plus que maa ngi la koy wax sànq nee nañu ay la yowin yorin bu ñu mel ñoom mësuñ koo gis. donc soo nee mbaam rek sénégalais mën nañ am problème mais problème bi newul foofu ndax encore une fois rapport ARMP waxul benn yoon ne foofu au ministère de l'environnement luuba la d'accord d'accord mais est-ce que jàppoon na wax dëgg yàlla li gënoon a yomb si si si ngir leeral lépp mooy bu rapport ñëwatee président jël rapport bi jox ko justice na leen saytu leen lépp loo xam ne jàpp ngeen ne jaarut yoon ñu génn ko si mais di def nam waxoon jël yenn rapport yu teg si coñcoom am na ay rapport yi ICE Cour des comptes ba léegi kenn xamu si dara loolu mooy loolu mooy nekk li nga xam ne chaque jour day jaaxal Sénégalais yi. waaw waaw waaw foofu daal lu ma fay wax mooy euh, y temps de l'action par exemple actuellement fu may wax ak yoon nii ARMP daf na liggéeyam ñu war a ñëw. après ARMP dinañu ñëw et encore une fois te loolu moom moo am solo loolu moo am solo je pense que tey sénégalais yi ñoom ñëpp seen dënn yaatu na ay xol xol xel xool yu rafet moom lañ yor je pense que fii kenn yéenewu fii kaso kenn donc suñ demee ba tey ARMP ne ay la yéwén yarin di rafet na dañ ko rafetu rek na alhamdulilahi rabil alamin d' accord alors euh, si beneen dossier maa ngi fàttali yow yaa jiite centre des œuvres université et sociale bu université bu Bambey euh, beneen dossier boo xam ne nag wax dëgg yàlla dinay jaaxal nañu ñi tout temps mooy bourse étudiants yi amul daanaka at mu jot te doon am étudiant bu gaañu wala euh, blessé blessé yu metti ndax ay fayeeku bourse te yéen ñi nga xam ne da ngeen ne nekk si centre des œuvres universitaire xam ngeen boobu aussi jotul wax dëgg président xoolaat ko euh, wàllu bourse yi tout le temps ni muy tardé ci un état boo xam ne nag li ñuy laaj ñoom ñoo ko moom. waaw waaw waaw li nga li nga li nga wax euh, dëgg la et dama lay remercier ci ci laaj bi euh, ministère laa jóge pour ñëw ci émission bi. ministre bi Cheikh Oumar Anne docteur Cheikh Oumar Anne dafa réunion bu mag réunion boo xamante ne question yooyu yëpp aborte nañ na ko ci réunion bi waaye mënuma jiitu jiitu kilifa gi donc moom xam naa ne ay bés yu néew dina si euh, prononcé wu wala mu yónni koo xamante ne moom mu féete kaw mu wax ci euh, kàddu ministère bi euh, waaye loolu su weesoo xam nga soo jëlee université de Bambey sànq rek xale yi ñu ngi koy wax ndax ñoom itam ministre bi recevoir na leen tey université boo fi jël rek dafa nekk si capitale régional muy Dakar capital nga dem Saint-Louis capitale régionale mhm. nga dem feneen capitale régionale Bambey foofu ci département na ne mhm. te métti na lool foofu ndaxte maanaam yenn saa sax da ngay am problème pour luy nekk te te te lalu université yi doyul kon xam nga ne foofu na gën a méttee mais lii xew Dakar waa université Bamba yi dafa ñu ko xam nga dëkk boo xamante ne tout est urgent on doit replacer l'intérêt général au cœur de toutes les préoccupations moo lu ñu bokk mhm. dañ ko war a sàmm mais man lu may ñàkk rafetlu di ko ñaawlu mooy yàq bu ñuy yàq ak bi suñuy toj xeer ñuy sànni ma tamit wax ah, dëgg yàlla parce que yéen euh, yéen ñiy directeur yéen i ministre aussi seen i salaire du tardé te vous si ay besoin ñoom bu ñu fayul du ñu lekk bu ñu fayul du ñu am fu ñu tëdd bokkuñu ñu def violence mais aussi xëy na yéen leen poussé ba ñu ak si foofu aussi non non on ne pousse pas xam nga ñun tey maanaam président de la république moom c'est le gardien de la constitution du dëgg euh, Alaaji Mansour suñu papa da ko doon woowee le père de la nation xam nga maanaam kër yore ko sax dafa jafe joxe ndekki añ ak reer waxtuma la ak président Macky Sall nga xam ne këru Sénégal bi yëpp moom na euh, euh, suñu borom da koo gàll ci kaw moom mooy le père de la nation mooy chef de famille bi donc un chef de famille lu baax rek nga yéene famille bi mais gestion état moom moo demee noonu au Sénégal surtout dans les pays du Sud nga xam ne tout est urgent parfois il faut faire des choix très difficiles mais étudiants yi ay la ay la yowén amaluñu leen xaalis xëy na am na tardement ces paiements bourses yi mais très rapidement dañu ko fay jusqu'au 14 14 je pense lañ wax le 8 le 14 ba pare euh, euh, xam nga soo demee njaareem parce que Sénégal nag ñun ñëpp ko bokk mooy sànq mooy sànq lu ma la doon rappelé président Macky Sall ñu nekk fukk da nga ko war a xaaj ku nekk am 15 njaareem soo demee njaareem da ngay gis foofu daara yi da ngay gis xale yi ni ñu mel ci daara mais ñooñu tamit ndax jotul ñu boole leen ci yi moo tax ma ne xale yi c'est vrai mën nañu revendiquer mais quand même bu ñu pousser trop les revendications parce que dëkk bi ku nekk rek da nga ciy am wàll te ku nekk rek su mën nga xëcc te suñu yàggee xëcc rek maanaam mën na indi beneen jeexital yéenay toog si plateau yi ne dëkk bi am na xaalis ñàkkul xaalis malgré covid bi da ngeen wax ne teg ngeen en place des yoo xam ne li war a dox léppay dox kon bu ngeen demee ba ba tardé bourse étudiant yi c'est normal aussi ñu am yenn réaction yi DG waaw mais bourse étudiant xam nga président Macky Sall ba mu ñëwee ci réew mi ak léegi huit ans lay toll mm-hmm. bourse étudiant moom ay la yéwén du guléet moom lay wax te wax dëgg yàlla euh, gouvernement Macky Sall daf na si ay efforts yoo xam te mësul am keroog assemblée nationale député yi ñoom ñëpp ko souligné ay la yowén lii xëy na sax dañuy wax ne premier retard la depuis au moins un an premier retard la depuis au moins un an mais yow soo fàttalikoo war nga xam ni lii nii moom gëj na am lu gëj a am la donc su amee nañu muñ rek xam ne on va dépasser la situation très rapidement d'autant plus que quand même am na ay efforts yu am solo yoo xamante ne def nañ ko dans le secteur de l'enseignement supérieur d'accord efforts yi ngeen def bokk na ci li ngeen di ndamoo tout le temps euh, ci wàllu euh, agriculture